li ñuy tuddee ñàkk parce que ñàkk la Seydina Aliyun waxoon lu ko gën metti amul daanaka nee na moo kufru benn la li ñuy tuddee weddi ma tax yeneenti bi saa yu masaan xëy ci lalam balaa teg tànkam dina ñaan yàlla musal ko ci ñàkk daan nay faral di wax ni allahuma inni asaluka alhuda wa tuqa wal ifaaf wal ghina yàlla yàlla nag ma musal ci li ñuy tuddee ñàkk yàlla yàlla nag ma jox njub yàlla nag ma jox ma di la bàyyi xel yàlla nag ma may ma fegu waaye yàlla nag ma may risas daan koy faral di ñaan daan ñaan yàlla itam mu di ko may xam-xam bu bëree waaye di ko may wërsëg wu wu sell wu teey baat boobu lu am solo la xëy na dinañ ci dellu si bi ci des même alquran wana ni ni du lu ñu war a jox maanaam du lu ñu war a tuddee lu positif xam nga boo demee ci définition yi sax am na ca nit ñu jëkk ña ña nga xam ne ay ruuxaani yuun lañ ñoo xam ne dañu jëloon li ñuy tuddee ñàkk sacraliser ko wane ni noobu yi rek ñoo war a ñàkk ba ci lenn ci suuf yu jëkk yee sax dañu sacraliser woon ñàkk mais alquran wan wane na ni du lu ñu war a sacraliser parce que di moment que mu wax yenent bi wa wajadaka daalan fahada wa wajadaka ailan fa aghna dama la fekkoon ci ñaari étape bu jëkk bi mooy dama la fekkoon ngay ummi bu réere lu bare ma waajal la ci sama daara ba sa kër nekk markasul fuhumi wal maani nekk manbaul ulumi wal maarif bu ñaareel bi mooy ma fekk amoo dara loo dunde ñu di la tudde yatimu Quraysh ma jox la ba ku soxla lu mu dundee ci yow lay ñëw donte sax di nga ma posé ni ma yeneen bi pourtant moo da nee na ci xilaas daana toog ñetti weeri yàlla yoo xam lu dul ñaar yu ñuul rek lay dunde du question daf ko ñàkkoon de trop waaye la mu daan am da ko daan séddale ba du am lu mu dunde yàlla toujours daan na koy jox loo xam ni da koy jël di ko mën di joxe kon diine fexe na ba encourager nit ñi ñu fexe ba génn ci loolu ñuy tuddé ñak xam nga way kat ba dafa wax ni bil ilmi wal mal yabni an-nas mulkuhum waye nak ba ca dess mom baxul lam yabni mulkin ala jahlin wa iqlal neena ku bëgg tabax aduna tabax diine ci ñaar rek nga mëna jaar pour tabax ko moy savoir

loolu ñoo tuddee tey monnaie même boo delloo ci xadisul xudsi yonent bi nettali na ci xadis boo xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ko wax yàlla nee na maa wàccee alal pour nit man ci sukkandiku pour mën a dundal julleem man ci sukkandiku pour mën a génnee asaka xam nga monsieur Dieng tey bu bëggee julli te depanse nekkul ci kër gi ah julli ga dana am kàbbar ak taslim waaye est-ce que dina am teewlu pourtant bu fa moyen nekkee julli ga mën na gën a am solo mooy la Serigne Cheikh doon wax ca maamam ba doon wax naan ko bu mu amulee jullig texet laay julli waaye su ma amee nag tabaarakallah yooyu yu am am solo la yenn cause mooy waral ñàkk cause yi am na yu ci euh, mbokk bi tudd sànq lu mel ni alkawaaris at tabiiya catastrophe naturelle yi am ci crise lañu jëm parce que ñiy investir du ñeme surtout bu ñu déggee ay terrorisme ak ay nangam ak nangam mën na dem ba wàññi ci économie réew ma lu am am solo te loolu day répercuté wu ci li ouvrier bi daan am ci saleeram ndax day dem ba dépense su réew mi dootu ko attan yooyu ci cause yi la bokk bokk na ci aussi itam li ñuy tuddee ar rishwa corruption corruption beeg yàq bi am ci société bi xoolal tey suñu société ni muy doxee amul benn secteur bo xamni di nga fa wara a dara presque nga jële ko ci voie normale commencé ci circulation bi commencé ci milieu administratif yi da ngay dem wara a lijjanti kayit bo xamni ni dañ la ko wara jox gratuite waaye faw nga am benn genre branlon wala nangam ak nangam pour mu gaaw yooyu yëpp day dugg ci cadre corruption yooyu lan lay jur mooy natiijatu xukmin xayri rachid dafay jur benn genre mal gouvernance ci dëkk dafay jur léeg lu nekk du xool ka ko mérité ñu jox la ko waaye li waaje waxoon ni boo demee États-Unis di wut liggéey dañuy laal